doy na preuve quoi. waaw gars yi gis lii de gars soog la boo xam ne. léegi léegi mbër bu Zoss ah. boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi. doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot aada bi. gis de nattu gars dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi. Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàmm ci yow lu bare bari Zoss. dafa nattu la quoi nattu la. waaw lu war a am moom gars yi kenn mënu dara vraiment. Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve gis nga lii de gars yi wax maanaam bi Zoss ah. Zoss boo fi def soog léegi gars fii si Malibu bi. doon waajal combat bi demee incha allah ah mot aada face bi. gis nga de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi la fi def soog fii ci Malibu bi Zoss. Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàpp ci yow lu bëree bëri sos wala jàpp rek yow incha allah bu la dara dal lii moom gars a lu bëree bëri sos jàmm rek doy na preuve waaw gars yi gis nga lii de gars yi soog la wax bi sos ah sos boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah mot aada face bi gis de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Zoss dama la rek yow incha allah bu la dara dal lii moom gars dafa nattu la quoi nattu la waaw lu war a am moom gars mu ci dara vraiment Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve waaw gars yi gis nga lii de gars soog la wax maanaam mbër bi Zoss ah Zoss boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot aada face bi. gis nga de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa doon sax fii ci Malibu bi Zoss Zoss jam ci yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Zoss wala yow lu war a am moom gars yi yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve yi gis nga de lii de gars yi soog la wax ah. Jos boo fi def soog léegi gaa fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah mot aada face bi. gis nga de nattu gaa dafa nattu léegi léegi dafa def bi Jos. Jos jàmm ci yow lu bare bari jàmm ci lu bare bari Jos. dafa la jàpp rek la nattu la waaw lu war a am moom gaa ki mu dara vraiment. Jos jàmm ci yow lu bare bari Jos jàmm rek. doy na preuve. waaw gars yi gis nga lii de gars yi soog la wax maanaam. léegi léegi mbër bu Zoss ah. Zoss boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi. doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot aada face bi. gis nga de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi. Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Zoss. xoolal jàpp rek yow incha bu la dara dal lii moom gars yi nattu la quoi nattu la. waaw lu war a am moom gaañ kenn mu ci dara vraiment Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve waaw gars yi gis nga lii de gaañ soog la wax maanaam mbër bi Zoss ah. Zoss boo fi def soog léegi gaañ fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah mot aada face bi. gis nga de nattu gaañ dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàmm ci yow lu bëri bëri sos wala jàpp rek yow incha allah bu la dara dal lii moom a am lu bëri bëri sos jàmm rek. doy na preuve waaw gars yi gis de gars yi soog la wax bi sos ah sos boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah mot nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Zoss wala jàppale yow incha allah bu la dara dal lii moom gars yi dafa nattu la quoi nattu la waaw lu war a am moom gars yi ki mu dara vraiment Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek doy na preuve waaw gars yi lii de gars yi la wax maanaam mbër bi Zoss ah Zoss boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot aada face bi gis nga de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa doon sax fii si Malibu bi Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Zoss xoolal jàmm rek yow incha allah ku la dara dal lii moom gars yi dafa la nattu la quoi nattu la waaw lu war a am moom gars yi kenn mu ci dara vraiment Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve waaw gars yi gis nga de lii de gars yi soog la wax maanaam mbër bi Zoss ah. Jos boo fi def soog léegi gaa fii si Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah mot aada face bi. gis nga de nattu gaa dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Jos. Jos jàmm yow lu bare bari jàmm ci yow lu bare bari Jos. dafa la yow lu war a am moom gaa Jos jàmm ci yow lu bare bari Jos jàmm rek. te doy na preuve waaw gars yi gis nga lii de gars yi soog la ah. boo xam ne def soog léegi gars yi fii ci bi doon waajal combat bi demee incha allah mot aada faas dafa gaaw quoi nattu vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi lu bare bari jàmm ci lu bare bari la dara moom gars yi dafa nattu la quoi nattu la waaw lu war a am moom gars yi mu ci dara vraiment. Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. doy na preuve gis nga lii de gars yi soog la wax maanaam mbër bi Zoss ah. ah. Zoss boo fi def soog léegi gars fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah. moo aada face bi. gis nga de nattu gars yi dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàmm ci yow lu bëri bëri sos dama la la dara dal lii moom gars daf la nattu la quoi nattu waaw lu war a am moom gars yi ki mu ci dara vraiment sos jàmm ci yow lu bëri bëri sos jàmm rek yerwago e jabar wan ge xeja leen lamb ji rek loo ci mën a dégg nañ ko ak lu mën xew daal Mamour nañu way lamb ji